إيدي إخا إعداد إخيادات bokki jullit yi bokki bi yi. Eh, la muy bisu mbégte. waaw waaw waaw waaw baax na xalifaab Alxaaji Abdoulaye Niass. muy taxala wa barakaatu. bokk jullit yi bokki taalibe yi góor ak jigéen mag ak ndaw su ngeen gisee li ngeen xew na xaw xew bu mag la muy xew diine kenn ku nekk xam na ne sunu xalifa mag muy xalifaab Alxaaji Abdoulaye Niass di xalifaab maam xalifa Niass muy Mawlaay Alxaaji Amar Niass borom imkaana li naasi awraad wa asraar fa lii bi am la xëpp bi kaw ni afkaaru moo siyaar bi yoon soppeem ba mawlaaya Seex Ahmad Tijaan Sariif radiyallaahu anhu ñu ñëw fi nag janox sunu baay alxaaji Ibrahima Ñas mi nga xam ne dundam lépp def na ko ci euh, dundal yonent yàlla Muhammad waaye dundam lépp def na ko ci dundal euh, diina Seex Ahmad Tijaan Sariif tey di suñu yaakaar di suñu jokkuwaay di leen sant yéen jëm yi yow bi nga xam ne yéen a ngi bi jëm yéen tu leen di wan amal ci daje bi ngeen daje. nar a teeru ji nga xam ne mooy suñ mag di suñ kilifa di suñ baay di suñ sëriñ muy El Hadj Omar Niass demoon ziyaara ji ki ma wax léegi muy Seydi yi kon am na ci ñaari ñaari yëf yoo xam ne war na su fekkoon ne du beneen dëkk la demoon it bu dul Faas ziyaara ji Cheikh te moom muy suñu sëriñ mu jóge ca dëkk ba ñu gëj koo gis ay fan gisuñu ko ñu dégg ne mi ngi ñëw ñu ñëpp war nañoo bàyyi lañ doon def dem teeru ko teeru du dara lu dul ku nekk ne sa morom maa la ko maa koy maa koy jëkkal ji sama morom rek loolu le benn appart go deuxième appart bi mu jógee ca Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu kon nag ñaari anam yëpp war nañoo jóg teeroo ji ko teeroo ko suñ sëriñ la gëj nañ koo gis te nam nañ ko te fa mu jógee it war nañ ko faa teew eh, ngir fa mu jógee mooy faas ndax bu ñëwee anwaar ya nga xam ne jëlee jëlee na ko fa ak asraar yi fa jëlee ak mbóot yi mu fa jëlee yëpp bu ñu ci kenn ëppale hmm. te yaakaar naa ne kenn bu ñu ëppale wuñu ci ngeen seet daayira bi nag daayiratul ilmi wala man la daayira xam-xam mbooloom xam-xam ak jëfe loolu réy la xam-xam bu àndut ak jëfe xam-xam ba amul njëriñ jëf it bu àndut ak xam-xam xam-xam euh, jëf ji du am njëriñ kon bu ngeen jiitalee li li ndax même gis nga ko sax euh, sëñ bi keroog ba muy dem daf maa woo eh, barkale ma ne ma dama doon bay bàyyi ba nga xam ne dem rek a des ma door laaw léegi nag fajar la dem ma ne ko waaw mu ne ma kër gaawu yaagu yaali bi yaagu yàgg fi dem maa ngi dem leen rek laa lay laa lay laa lay sant su fekkee ne des naa fa buñ ma indi nañ ma nañ ma far suul bon ma ne ko bu dee xaaral damay ñibbi mu ne ma waaye nit ku nekk am nga droit wax la nga bëgg mais kii rek daal des naa fa daal fa def ci jaan yi dañu fa def kon nag gannaaw dafa waxul loolu yàlla nag mi nga ne mooy def def ba muy ñëw waa ji sëriñ bi war nañu jël accueillir ko waa ji ah accueillir ko pour li ma wax dana desut fa yàlla ah, mu des fa kon nag alal bi boobu ko desut te kat xaji Makka neex na de ziyaara ji neex na de waaye ñibbi si ñibbi neex na de kon nag aji màkka neex na kon nag ku aji ba ñëw ba ñibbi say bopp war nañoo jóg la ah, ji neex na de bopp képp war nañoo jóg ak yéen la ak yéen mooy gàttalu la teeru la teral la tatagal la lii daal moo ci sama wax eh, fi mu ne dañoo ci jamono joo xam ne eh, ab tijaan damay wax ne tijaan ab takkusaan lu am jot ndax wér dawa moo war moo tax waaye nag lépp wérdu la am na yoo xam ne pour façon yi jëf yoo xam ne moom jëf moo jaamu yàlla gaa yem ndax lii ngeen daje fii dajewu leen fi ngir bóosóor dajewu leen fi ngir fo dajewu leen fi ngir sañse yeneen fi dajee ngir lan yàlla yonent Cheikh Tidiane te itam ñun itam li ñu war a tëw war a jóg ak li tam ñuy jóg di def ak di wax mooy yàlla yonent Cheikh Tidiane yàlla yonent Cheikh Tidiane lu mu lal loolu dafay dëgër lu mu tegu it loolu dafay tëgg lu ko jiitu it dafay tëgg kon nañ xam ñun ak yéen lu tax ñuy xam ne ñun ak yéen nañu ci yàlla fillaahi billaahi dégg nga de suñu ci yàlla yàlla dana yàlla dana ñun yàlla dana ñu jàppale te bu kullu nu ko ah woykat ba waxee fii bu kullu soxbatin gayrullaahi fa axiruha inna lillahi ànd boo gis nag te yàlla taw mujj ga ay ndeysaan képp kon nag ñun ak yéen suñu ànd ana mujj ga mooy lan la axiru daaw yow alhamdulilah rabbil alamin kon nag saalum ngeen dem eh, ci ak accueil bi kon ni nga xam ne moom ngeen ko waxee ñu ngeen def rafet na lool neex na lool neex na ma wax dëgg yàlla ndax ay yëf bu fekkee ne te yaa ko moom ah ñu jox la ko dina la neex ay yëf boo xamee ne eh, yaa ko lii ñu la waroon dégg nga day waaye nag xëy na temps bi mayiwu ko ak mage gi mayiwu ko ak wér duul mage sax ndax damay wax toujours kër këram këraat ci kanam laa jox war kenn wuru faa jaay ak mag waaw booy jaay ak mag kay ngay yëg ba ngay teg fële laa jox war dégg nga ko day door a jaay ak mag waaye nag laa jox war teew bi ngay jaay ak mag dégg nga ko day kooku moom bu sof waaye nag bu ñu ko day it nag dégg nga day walla bu fekkee ne tey masalan suñu biir di may may lu wax suñu man ñoo wax lu dul mun ñoo def lu dul gis yi xayran bokku fii comme tey yàlla leen yàlla leen ñu boo xam ne ak eruwaay amul yàlla bu ñuy fay yàlla mel ni baatam wa jógee du fa jeex

baatam laa ilaaha illallaah ak bi bi di kisaar yi bil amali saalihaat yi di bëri jëf yoo xam ne itam jëf yu yiw la jëf yu baax la di liksaar yi dégg nga di bëril jëf yoo xam ne amalul maxluur ñu koy defee yàlla na ànd ak ñun ci zaahir ànd ak ñun ci baatin barke yal nañu yàlla xàggale weeru koor yi weer wi tey toll tey ci ñaar fan lan ak lan ñaar ci ñu umoon samedi ñu umoon àjjuma waaye duhut ñun boobu rek ñu ngi teel a ñaar fan ak ñett dégg nga ko nag weer bi daal teel a am ñaar fan ak ñaar ci gàttal kon nag li ci des bëreetul. yàlla nañ dugg nañ ci ci bismillah rahmaan rahim ñu ngi ci bëgg a génn ci alhamdulilah rabbil alamina man nga ne alhamdulilah rabbil alamina gi alhamdu gi dégg ko rëy moom rey nañ ko xanaa lu ci des nag lillahi rabbil alamina gi mooy fan yi des rek yàlla nañ ko mottali te mottale ko sago àggale ko sago te yàlla jagal ko neexal ko barkeel ko yàlla def ngeen ngeen di mag def ngeen ngeen di mag yi barke maam ñi ci amul jëkkër yàlla may leen di jëkkër ñi ci amul jabar yàlla defal ñi amul liggéey yàlla jox leen liggéey ñi ci am ñi ciy jàng yàlla jox leen jàng si ñëpp loo xam ne ni am nañ ku ci am soxla rek yàlla yàlla faj si loolu rek jeex na ndax soxla moom kenn ku nekk rek yaa ngi sa soxla xam nga ko xam ko dee ko dee yàlla bi nga xam ne moo ñuy na ko xam na ko sañ nañu ko yàlla ñu ko fajal allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim saako yi ba nga xam ne ñu taxaw ne teel lii kat yëpp suñu ko boobu bu ñu defee lii ñu dem ko jëlee si kaw si te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mosal wan nit ñi dara dama la wan maa yeneen ci saay waaye ci saa bi sama diggante yàlla la yéen bu leen dëggale kaa de rek seen bàjj moo woon ci def bu ñu ni maa ko ko sol ci jamono yeewe ak jamono ji ci ak diggante ñu ñu waaw ay dinaa ne ma ci ñett

Needed. Hmm? Hmm. Farlig tjänar. Vad håller jag? Bannor. Bannor. Yeah, yeah, yeah.

ko yaa ne ko doo génn ndax yow sama dëkkandoo nga. Marrakech fu bëri bàmmeel la. mu ne Marrakech gi muy wax ne fa lañ suur Ahmad Sikarija fu bëri bàmmeel la. waaye ba mu génnee. àdduna moom Ahmad Sikarija. ñu ne nañ ko yóbbu bërëb sàngam. ñii warante ne nañ ko yóbbu feneen. ñii ne fii. ñii ne faa. Ah, am ku wax ni. moom Ahmad Sukari ji nag ku bëggoon Qaadi Iyaad la. nañ teñ ko faa denc. ñu dëppoo ci loolu daal di ko fay denc. kon loolu mooy tegtale li Ahmad Sukari ji waxoon li mu waxoon ko am kas la. gànnaar gépp dog ne yow Mouhamadul Waali dañoo bëgg Mouhamadul Xaafir dañoo bëgg nga sedd ñu ci la nga jëlee faas mu ne téere ñu ne ko baxal téere bañu mu ne ay téere ay yére ñu ne waxuñu yére de tariqa bi nga fa jëlé lañu wax ñepp mu ne bobu nak ñepp daal di wëbëti ku ñaan mu ne Cheikh amadou Tidiane nit la ko xamé né amut morom Babacar Wan Thank you. waaye li mu def moom mooy ñëpp la léegi maa ngi gërëm ñëpp waaye ñu fay liggéey ñëpp te baax na wax ne maa ngi koy xaar ñaar xaar boppam yàlla ko yëg ak yàlla yëkkati ci ci réew ci wàllu li ma ko suul wax na ak moom mi waaw Seydina Omar moom sa tur la moom Seydina Omar bi ma jël si waaw ma ne moom sa turandoo la Seydina Omar lañ ko tuddee

saaba yi dañ daa jaxase waaw jabar yi yonent bi sallallahu mu ne yàlla yàlla loo wàcce waay ñun ñoo xam ne dootuñ ci jabar yonent ñu daal di wàcce laa bu nga ñëwete saaba yonent boobu su kenn ñu ndax bu bu leen xoolee ñaari ko ñu leen nekk bala ko leen génn ndax moom xam na kersa si da ngeen di waxtaan yaay dangeen di waxtaan comme seen yoon wi rek ni ngeen ko. ah waaw. waaw man Ndiaye yow. bu yow yoon noo ko gisee. dem ngeen ci jàmm ñëw ci jàmm. alhamdulilah. alhamdulilah sant sëñ bi te di ko ñaanal bu baax. amiin yaa rabbi amiin sant sëñ Maodo di ko ñaanal. amiin amiin amiin wax dëgg yàlla lépp loo xam ne mënoo ko. ku la ko mënal. ko war a ko sant war a ko gërëm. amiin amiin waaw ñu ngi leen a sant di leen gërëm bu baax a baax a baax. waaw kay Baye Martin nii wax dëgg yàlla ñu ngi leen a sant di leen gërëm. wax dëgg yàlla ñoom itam fatabaarakallah. waaw. alaaj sëriñ loolu alaaj sëriñ loo gisee yoon wi. waaw yoon wi sant yàlla ba mu bëri. gërëm El Hadj gërëm sëñ gis El Hadj Omar ñu ko ay daal maanaam dana ñaan yàlla ñun yàlla ñu ko yàlla maye. gërëm na El ko ñu ne gërëm nañ ko. ay daal gërëm baax la ñu boole. ñu xam yërmande ñu xam yar. ñu xam te ni ñu bëgg nit. lépp la nga xam ne nit soxla na ko daal su ko yëgee defal nañ ko kon gërëm leen rek moom lañ mën a def ñu ngi gërëm kilifa gi kilifa gi nga xam ne moom ku ne xam ne ak mbaaxam ku ne xam ne ak matam ku ne xam ne ci fadal ci tarixa bi ñu ngi ñaane yàlla yàlla guddal fanam ko may ko wér ñu ngi ñaane li ko yàlla jox ñu <coughs> ko moom adduna ñu ko bokkee moom adduna eh. nañ ko bokkee moom eh, ñu ngi eh. gërëm moon Ndiaye ñu ngi gërëm Massé ah. ah. te ñooñu de xam nañ ci ñoom yaakaar joo xam ne bis bu leen ko yàlla fayee yëpp xaj ah. ndax kilifa gu doole alaajo moom ñàkkee kàttan tey hmm. yàlla boolee moom jox la xol bu nga ko mën a hmm. jox la wér bu ko mën hmm. jox la ba tey ak ak boo xam ne daraam daraam daraam doo ko sànq daraam doo ko sànq la joxee fukki dërëm sax dërëm ba danga ko delloo si dañuy wax ne koo jël mu yàqule ci bëkk néeg hmm. xale di jàmbur rek yàqule xale di hmm. jaar ci sa loxo nu neex nga def hmm. ñii nag dara moom sëriñ bi sax lekkum te yërmande ji ñu xam ci sëriñ bi doom sëriñ bi jur sax xamuñ ko ci moom coono bi ñu xatt na sonn ci sëriñ bi doom sëriñ bi sonn sax njur sax xaatuñ ko sonn si moom. kon nag ñun sant yàlla ba mu bari gërëm leen ñaanal leen ñu gudd fan. amiin di ñaanal leen bu ëllëgee ba leen yàlla dafay fay gën a yaa biñ bokk ca. wala suñuy boom bokk ca wala suñuy njaboot bokk ca. amiin barki seen asiya. amiin barki yeneen bi. ñu ngi gërëm itam sarif mi de. gune bu baax la gune bu bi yar la gune bu am teggin la hmm. sëriñ bi xóolu na ko yaakaar na ko bëgg na ko hmm. bàyyam la njëkkoon a bëgg bàyyam la njëkkoon a xam xóolu hmm. woon bàyyam bëgg ko yaakaar ko la woon ca bàyyam mu ngi ci moom maan mi la itam maa ngi moom kenn lañ ci sëriñ bi mu ngi mel ni sëriñ bi daal su fekkee ñaari béjjën la xam benn bi mooy maan benn bi mooy man ndax ñun bañ de gune toll ci tàmbalee samp kër lañ ma yàlla boole naag sëriñ bi cinquante cinquante deux la commencé di xànd ak moom di tukki di am fukki fan ci xale wala ñaar fukki fan. Mm-hmm. maqaama bii moo njaay taxaw tey maa ko ci jokkoon. Mm-hmm. kon nag suñu jékkee nag ba man ma xam loolu ba génne ji. Mm-hmm. ba ma fa bàyyi ko yàlla jox ma loo xam ne sant naa ko yàlla. dana ma wóor ne moo njaay taxawaay bi mu taxaw bu ëllëgee yàlla ñu ko jox ba mu ngi sant yàlla. yàlla yàlla fay leen. yàlla jege ko tuuti. saa yu ak baati. jege la ci sëñ bi kay moom waaw kay. alhamdulilah. ñu ngi sant yàlla sant yonent bi te mm-hmm. gannaaw bu loolu wooyee mm-hmm. ñu ngi sant Alaaji Omar Ñas mm-hmm. sant koo xam ne amul xat ndax fa njaayaan bokkane ne ak fa baati ne mu seen ñaari nit dara gën a diw diw loolu wax dëgg yàlla rëy la si tarixa mel na ni décoré la si lislaam décoré bu rëy rëy waaye ñun fu ñu mën a ne dañu ko ñaanal. Mm-hmm. naka jëkk lay ñëwoon. Mm-hmm. léegi nag rawatina sëñ maamu. Mm-hmm. sëñ maamu moom. lu mat a teg si rajo bi. ñu ngi koy gërëm. ñu ngi gërëm di ko sant. te xale mi nga xam ne moom lañ xaar moom lañ xaar toon. nga xam ne moom la ñu booleel alaaji na Bachir. waaw Bachir. ak Sidi a ak Sidi Arab. ak kii. Abdou euh, Ba Abdou ñii dañu booleetoon. waaye ñu yaroo yaroo yaroo lañ. xamuñu benn tiital. xamuñu benn tiital wax dëgg yàlla bu doon ni ñeneen di xam benn jaay ci tiital waaye mosuñu koy def mosuñu ñàkk a teggee. Hmm. lu ñu war a def ñoom fa ñu wax ni jiitu leen ñu nekk ci gannaaw. ba loolu yombul. Hmm. moon jaay moom. Hmm. yàlla rek a koy fay. waaye yàlla bu mu yàqu moon jaay taxawaayam. xam nañu li Alaaji Sëriñ waxoon lii ci lañ mm. de ci ci lañ njëkkoon mm. waaye wàllu kóorale gu ne mm. jaar naa fa Alaaji yëpp xam nañ ne boolem ku dëkkee du xam xam Alaaji Omar xam nga ne Alaaji Omar suma ñu de du mukk quinze jours wala weer te di ko may kaw la te ama benn dërëm su ma néeg néegi ñax dong waaye sopp naa ko sopp moo xam ne te yàlla bu mos a yokkati du yokkati ñu ngi koy ñaanal fan gudd ak wét ak yaram yàlla defal ko si ñu lay gërëm di la sant yaru gii de alaay sëriñ maa moom toog nañ ci néeg wax la ko wax ko ay yoon yoon bañ waxee ne Kéba Ndiaye ñu ngi koy sant di ko gërëm waaw wax que yàlla ku sonn si ñun Dakar la ak si Casablanca ak Fass Baraabaat yëpp sonn ah léegi ñu ngi leen di sant di leen gërëm yal na yàlla yàggal sëriñ bi taxawaayam yal na fi yàgg sëñ maamu ñu koy ñaanal yal na yàlla may ko maqaam boo xam ne mooy raw maqaama maam ba yal na ko yàlla may wér may ko njabootam na ko yàlla xaar sëñ maamu dañu ngi koy ñaanal yal na yàlla defal ko jàmm bi jaay Sidi bu Diop allahumma salli ala sayyidina Muhammad ati lima ughliqa xaatim limaa sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wal haadi ilaa siraatikal mustaqiim wa alaa aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihil aziim

yéen fekk muy wutu sa ko bokkul ak dara ndax ne bu ne koo teral yàlla nga teral yéen bi nga teral Cheikh Matia nga seen yoon ne yàlla def muy ci yoon yi siyaare yi nangu ñu jaay siwu yoot sërigéen jëf ngeen baal ñu wax ñu ngi siyaare ñëpp tabarakallahu def leen ñaan def leen ñaan def leen ñaan def leen ñaan ah def leen ñaan danga ñaan ci kaw waaw danga danga jàng ci kaw yow asbillahi min shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rahmanir rahim allahumma amin ihdina siratal mustaqim amin الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض من ثبت يسمعه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهتم بشيء إلى بما سأل الساقشي وسمع الولاة والأربع ولا يؤويه سمعه والحديث اللهم يسر لنا أمورنا وأبدانا وسلام عليك والحامدين وبيانا وكن لنا سعيدا بسفرنا وخلفة بأهلنا اللهم اللهم إنا نسألك بتيسير المظلوم والنيل المطلوب وكشف الكروب وستر عن الهيوب وكفر عن السبيل والهم الموهوب والحسنة القلوب إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تحاسبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون اهلا وسهلا على المرسلين والحمد لله صلوا صلوا Yeah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعمدون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا yi nga nuyu tarixam xale yu jaar suñ toll jaar na ñu ne ñu salaay salaam. waaw waaw nga tax. waaw nga tax dina fi ñu toog bu taxawee yeneen fi ñu taxaw buy dox yeneen fan yi dox buy nelaw yeneen fan yi dem ak moom bu dee yeneen fan yi dem ak moom bu fekkee ci bari yeneen yeneen fan yi dem ak moom benn tarix la am ci mel. xanaa maa koy li mu baax baax baax baax xanaa yow boo boo politique waaye yàlla bu ko yàq looloo ko

bii nii ngay wax ne bi ngay xool nii moo ngay wax ne moo euh, moo moo dàq bële boo xoolee bële nga fàtte bii jéem jéem si rafetaay nga dem xool bële fàtte bi nga gënoon xool parce que fàtte yaa moom yaa moom li nga def nii dina ko ñore su ko defee nag ni mu xoolee woon moo lay xoolee su ko defee rek ci ci wàllu jiw sax ñu ngi koy boole dindi waaw ba yëngal yëngal wala mu wala mu. Euh, dem dem di ko fekk dem di yëngal yëngal dara mu xam ne kii dem bu ko defee mu doon ko sël bu ko sëlee leen ko digal mu taal ci balaa ngay dee xam ne dinañ ñëw nam doon métti bu njëkk nag wér na saa fat yi wër na ci réew mi dëkk fa jam moom جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار قيل لهم ذوقوا عذاب ولنذيقنهم دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون من اظلم ممن آيات ربه ثم أعرض عنها وإنا من المجرمين منتهون ولقد آتيناهم الكتاب ما في مرية وجعلناه هدى لبني وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض شرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله وهو يهدي السبيل لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم oto du ca xaj. kon de moom bu fekkee yëf yëf. dem nañ ba jiw bi doon feere wuñ ko ñoom. kon ñoom borom dañuy yéen. ah dañu ko yebale ci nit ñi. kenn ku ne waaw ñoo ngi ne bu ko yëg xam na ko yëg yónni ko ay oto. asalaamaaleykum maa naka yaram bi dégg nga la loo xam ci ngan gi nag. waaw ah, ok. ok. Ah. amiin amiin sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yow loo xam ci ngan gi mbaa ngan gi neex na. amiin yaa rabbi amiin amiin amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin amiin amiin yaa rabbi baa jënd taxawaay yow loo xam ci ngan gi. هكذا آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين هكذا هكذا

waaw ma ne ma ko waxee ba léegi ku ma ne ma dégg ko la liggéey nga naan ñii ñii ñii aaye lu waay ñu dem. njëkk ne da nga naan am ñaar sax ndox morom. ah waaw <laughs> mu ne daal bu baax mu ne daal ci baax. mu ne daal léegi li ci baax. ah. Diop Diop waaw. yow lay jël di ah. waaw. gannaaw léegi nag jàmm jàmm. sant yàlla. alhamdulilah. ah man de maa ngi koy ñaanal. waaw waaw yàlla may ko wér may ko mbooloo muy dund. ñu ko xob yàlla na leen ci yàlla bàyyi. amiin amiin amiin mu di leen defal lu baax ñu di ko defal lu baax ba mu ngi jëm borom. amiin man de loolu rek laa koy ñaan. waaw waaw njabootam bi yàlla def ci barke. amiin amiin ci dëgg yàlla jubbanti na. amiin amiin yàlla lii nga lu ca barsàq ak seen am. amiin amiin yàlla may ñaan yàlla. lu ci jëlee rek yal nañu ko yàlla fayal la. yàlla bëgg say daal la yàlla. amiin amiin amiin di leen sant yéen ñi fi desal. Omar ak Ndiaye. ak Bilal. ak Cheikh. yàlla leen yàlla defal jàmm. amiin yaa rabbi ndax waxu leen kenn lu ko naqari. waxu leen kenn lu ko naqari. di leen am ak alaay dama rek. yéen a ngi fi toog jotul leen ak kenn. di leen wàcc ci yéen a koy am nga ne ne ñu kër ga touché dem ndax alaaj ma ñëw bu waaye dugg leen ah, ah. lool. dañoo dikk rek toog ci kër gi. Ah, waaw su war a def ñu def ko. wax ñu wax ko. waaw jërëjëf kër gi. ndax yooyu yàqoo ci dara yooyu. déedéet yàqoo ci dara. ah kër waaw waaw. lu si waay def rek yàlla koy lor. waaye maanaam daa mel ne.